ci woote wu parti de l'indépendance et du travail parti de l'indépendance du travail bi leen woo ndax dafa jàpp ne tolluwaayu réew mi tey dafa nag tolluwaay boo xam ne laaj na taxaw seetlu ndax nag euh, yëf yi egg na fenn foo xam ne ku nekk war nga yëkki sa baat nga wax mu leer ñu dégg ñu nag waa PIT ci mbir moomu am nañu doxalin boo xam ne beesul ci yéen li ñuy faral di def mooy bu ñu dajee kuréelu jàng natt gëstu dañuy woo suñu askan ne ñun dey li xew nii lañ ko gisee ci fàttali nag bari na fu PIT yekkee baatam ne tolluwaay réew mi nii la demee suñu gisin mooy nii lañ war a doxale ay reetaan topp ci ay saboté topp ci ay xarab topp ci waaye nag li ñu ciy may rek loo xam ne sentiment de satisfaction la mooy bari na itam bu ñu waxee loolu ba mu weesu yoon wi ñu ubbi xàll ko ñu bari ca la ñuy jaar bi ci yorinu réew mi ci waxtu wi ñu toll ba tax na secrétariat commité central bu PIT xool na xoolaat bu baax a baax situation politique réew mi natt na bu baax a baax fi ñu toll lu garaaw la gravité boobu nag yéen seen bopp taskatu xabaar yi yéen a ko fësal tey jël leen seeni organ ngeen xool li ñu jot a waxandi ak li xew ak li ñuy nas ak li ñuy naan am naak amul ay nit ak yu dox mu xew si réew mu tudd Sénégal ñu mel ni ñenn ñi dara xewul mbala yéeguñ dara loolu xew nag ñun si suñu natt ñun waa PIT jàpp nañ ne doxalinu coalition Yewwi Askan Wi moo ko indi seen responsabilité responsabilité bu mot la nekkul nag loo xam ne dañ ko jëfe di ko def nekkul seen coobare déedéet si teyin la wax ne ñoom ñoo jël boobu responsabilité def ko doxal ko ndax nag ñoom jàpp nañ ne dañu war a tiim ñëpp te yoon wuñ ko mën a amee rek ak wéyee jaral na leen ko ñu boole ci surtout ne tiim ñëpp boobu ñu bëgg même bu fekkee ne sax day maanaam ruusal loi wu république bi ñoom pare nañ ci au fond booy xool Yewwi Askan Wi dafa ne ñaar moo mën a am soit li ma bëgg ngeen defal ma ko mbaa boog bu ngeen ma ko defalee réew mi moom ñu jaxase ko ñu ne nag loolu ñu wax buñ ko waxee mënees na am nit koo xam ne day jàpp ne méngoowul ak li am waaye nag boo boolee yenn yi xew te yàggul di nga xam ne bu baax a baax loolu ñu wax lu am la loo xam ne ku nekk mën nga ko daj ci yan firnde ci yan firnde la bëgg a teg kàddu googu ñu yekki mooy benn bi kan si journaliste yi sénégalais yi kan si moo fàtte fan yu néew ci gannaaw ki nga xam ne moom moo yor baatu Yewwi Askan Wi di ko doxal ci mbiru élection yi kan moo fàtte ne dafa xëy ne am na kenn ku bokk si ñoom moo jaxase seen mbir moo ko sabote moo yàq lépp loolu barke démb la kan moo ko mën a fàtte kan moo jàngul ci xët yi benn poste boo xam ne ki jiite Yewwi Askan Wi moo ne càggante ñàkk teewlu benn nit yàqal na coalition bi yàq na liggéey boo xam ne liggéey bu yàgg la yàggul dara ñoom ñoo ko waxal seen bopp naka ngay mën a nangoo nag bala nga dégg ne ñooñu wax loolu bëgg a taxaw tey ne déedéet li xew kay xanaa président Macky Sall la xanaa conseil constitutionnel ñoo leen bëgg a xañ seen i droit naka lañ koy mën a waxe naka lañuy mën a comprendre ci réew penn pàcc ci réew mi ne man bokk naa ci xëcco bi waaye nag nanguwuma bépp arbitrage maanaam bépp atte boo xam ne melul ni nga xam ne noonu laa ko bëggee naka ngay bokkee ci xëccoo nga ne bépp arbitre maanaam képp kuy saytu koo xam ne li mu wax neexu la jubuwul say pexe dangay naan kooku kay li mu def baaxul ah wax jooju ñoo ñu yekki ak taxawaay boobu ku nekk xam na lu mu jur ajuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi lim nañu ñetti doomu aadama ci Sénégal ñoo xam ne seen bakkan wadd na ñuy jaale seeni mbokk di jooyandoog ñoom ñàkk boobu ñu bari jëlee nañ ci ay gaañu gaañu am na ay yàqu yàqu yu am yu bari am na tam waxtu njàng yoo xam ne gone yi ci suba yi lañu tëj yenn yu bari école yi ne buñ dem ndax balaa ngaa naanaam nekk fa am na ñoo xam ne bu ñu xëyulee duñu lekk bu ñu gont gontuwulee duñu lekk dañuy fortaatu seen liggéey yàqu na bés boobu ci waxtu woo xam ne waxtu bu jafee la ñëpp xam ko li ci gën a doy waar mooy ñooñu nga xam ne ñoo doxal loolu dafa mel ni ñoom li xew doyul doyaluñ ci ndax nag boo amee dégg-dégg di nga xam ne dañu naan sénégalais yi waroon nañu gën a génn boo amee dégg-dégg nga xam ne li lu lan moo tekki li ñuy wax nee nañ ñoom président Macky Sall xamul dara leneen lu dul nga jaay ko doole donc loo ko jaay doole rek doyul or jaay doole boobu gis nañu li mu jur ñu ne nag bu amee ay nit ñoo xam ne dañu nekk ci langue politique bi am taxawaay woowu nga xam ne ñoom wax ju ëpp mooy seeni mbir li war mooy ñun dey waa PIT dañu ne sénégalais yi am na benn kàddu moo war a jib ci suñu réew mooy ban mooy kaddu fàttali ne mën na suñu nekk nekkandoo bokk fu ñu dëkk bu fekkente ne amuñu loo xam ne moo ñuy may ñu saytante suñu diggante ñu bañ a dalante li tax ñu mën a nekk si ëtt bi toog fi waxtu toog fi ñaari waxtu te dara xewul mooy ku nekk si ñun da xam loo xam ne nees na ko def ak loo xam ne mënees na ko def mënoo dëkkandoog nit ñi naan règle du am loi du am norme du am mbaa mënoo nekk ak nit ñi ne man day li ma bëgg rek bu nekkulee addina day tukki kenn tegu ko fen waxtu bi jot na pour sénégalais yëpp ñi nekk ci partie yëpp ñi nekk ci kuréelu majorité bi ak ñi nekk ci opposition bi ñëpp ñi nga xam ne li ñuy naan paix civile maanaam jàmm ci Sénégal li ñuy naan dal ci Sénégal li ñuy naan démocratie ci Sénégal ñuy naan wut ay pexe pour génn ci jafe-jafe yi nga xam ne lañ nekk jafe-jafe yi topp mbas bi nga xam ne moom la ñu dund jafe-jafe yi topp crise bu métti bi nga xam ne moo lambee àddina bi entre la Russie et l'Ukraine sénégalais yooyu yëpp nga xam ne loolu ñor na leen tey ngay muy ay yoo xam ne ay problème existentiel la ñu ngi leen di woo ñu taxaw ñu bëgg ci rogante rek benn mbir mbir moom muy lu am solo fekki weer 2023 war nañu commencer nag assumer suñu statut pays producteur de pétrole waaye nag kenn réerewul mbir ne bari na fu loolu xew au lieu mu ànd ak taw fii ak jàmm mu indi ay jafe-jafe ndax nag am na ñoo xam ne mu jaxasoo ñu ñàkk déggoo ñu ñàkk ñu ñàkk ñàkk kottal loolu moo leen jig loolu la ñuy dox ñooñu nga xam ne boobu taxawaay lañu am nekk waa bitim réew ku nekk si ñun war nga xeppi say bët xool ndax amuñu lu ñuy naan ay relais fii suñu biir yenn ci relais yi nag ñoo ñu gën a garaaw mooy ñi nga xam ne au fond booy seet seen taxawaay mooy taxawaayu xam taal mais nag dañuy ëpp maanaam dañuy mat di ëpp di ëpp joue aux sapeurs-pompiers pour des feux yoo xam ne constamment ñu ngi koy entretenir du ma ci sori mais ku xool dugg ak dëgg dugg ak génn bi ci réew mi surtout ay nit ñu jóge bitim réew ak jokkonte bi ñu am ak ñenn ñi sa xel war naa xaw a ñaaw ndax lan ndax yu mel noonu feneen moo jur li nga xam ne gis nañ ko fépp ñu war ci jële njàngat ba tax na ñun ne nañu ñi nga xam ne dañuy woote ay ñi nga xam ne dañuy woote tojante bopp ñi nga xam ne dañuy woote reyante ñi nga xam ne ay saaga ak i kaddu yu ñaaw la ñu am ñoo ñëpp Sénégalais yëpp fu ñu mënta féete ñoo war a taxaw ne leen ne suñu réew am na leneen lu mu tal ak lu mu soxla lu dul loolu. am na nag loo xam ne buy juddu bari na ñoo xam ne dañ koy soofantal di ko seetaan nag ba mu màgg te bu màggee nañu xam ne kat li màgg ci sëy bi ci ngoro ba foofu la nuyoo maanaam. yenn fànn doxalin yi te dara xewagul am na koo xam ne boo ko ngembee bàyyi ko ba mu màgg ba mu am plénitude dooleem ah lay décédé mooy constater les dégâts waxantuwuñ nag yàlla daf ñu baaxee ñun dañu yàgg ci làng bi am seetlu moo tax ñu ne sénégalais yi war nañu gindeeku waruñu bàyyi kenn fu mu mënta feete muy fàttali ay doxalin yoo xam ne day indi ay doxalin yoo xam ne li mu juróon ci àddina nekk na lu bon yan façon moo tax ñu wax loolu mooy benn di wax loo xam ne dafa waroog dëgg je rappelle que la vérité c'est le discours qui est en adéquation avec les faits j'ai tout à l'heure relaté des faits qui montrent qu'il y a des discours dissonants d'avec les faits kii wax li dul dëgg mooy kii wax loo xam ne amut loolu nag fu mu baree war na attirer attention leneen li mooy topp di propagande maanaam façon wax yoo xam ne da ngay puus muy dem mu ngay puus muy dem ngay puus muy dem beneen bi mooy endoctrinement fexe ba jëmbat ci xel yi yenn yi surtout di ko dugal ci conscience su ñenn ndaw yi nga xam ne ñoo gën a vulnérable li ci tegu mooy fexe ba di construire li gone yi naan ay super héros tabax benn nit bu fële fii rek ñu teg ko ne benn zoro boo xam ne moo mën lépp ça n'a jamais nulle part donné du bon surtout boo ci yokkee nag ñoo ñooñu nga xam ne seen arme favorite mooy doole mooy toj mooy yàq mooy dal xaw ma yéen de mais man tey bu ma liiree li ma jota liir ci presse bi sama xel xaw na ñaaw bu ma déggee ne ay sénégalais ne nañu en charge de montrer que am na mbala amul ñu ngi doon waaj ne dañuy dal ci Sénélec ñuy waaj ñu ne dañuy dal ci RTS ñuy waaj ñuy dal naan si dañuy dal si cour conseil constitutionnel ñuy waaj ñu ne dañuy dal si yenn kër yi ñuy waaj ñu ne dañuy dal si ay poste de péage ñuy waaj ñu ne dañuy dal si terre sénégalais yi ne bu kenn waax bu kenn bu kenn bu kenn xalaaj bu kenn laaj ce n'est pas possible et c'est dangereux pour nous suñu responsabilité ñun waa PIT mooy ne leen ne am na ji joo xam ne kenn mësul gis ci àddina mu jur maanaam góob bu baax li nga xam ne nag boo ko jiyee nga jëmbat ko li muy jur loraange la baax na fépp foo ko gisee bu dee sax mënoo ko buddi nga ne lii kat jëmul kër